donc gars yi day def vidéo boo xamante pour man vidéo bu am solo et que tey man mi di ko def ci am lu ma ci jànge yéen tamit di am lu ci mais ci commentaire tamit ngeen wax ñu ci seen xalaat vidéo bi dañ wax que ne nan lañ mën def ngir mën convaincre binationaux yi ngir ñu choisir suñu équipe nationale bu Sénégal donc dinañ ci jot dañ points yu am et que euh, dama les conseiller ngeen une vidéo bi ba parce que c'est très important donc tay limay may aborder ci vidéo bi